xeex bi ni gars yi dañuy xeex de da xeex nii def bruit bi def ni xam nga vidéo abindoor bi démb bi ko nit ñi seetaanee loolu lan lay nuróol. dëgg yàlla. lan lay nuróol laay laajte. wóo loolu lan lay nuróol. abindoor ni mu dëggoowee. nit ku ñëw ne la yow bi bibeet bii di nga ko fi jëlee. nit ku dëggu. booy benn ñaar déggaat naa ko ci biir vidéo bi mu wax ba interpellé euh, euh, Anta Ngom. Hmm. mu ne jëkkëram ci boppam moom moo mujj ñëw sax. te jëkkëram gendarme la. Mhm. tudd turu jëkkër ji. Mhm. ndax seen ginaar ginaar KFC yi ñuy jaay. <laughs> jëkkëram am doom ba tànk di ma mën a si waaye dama ni gis nga alaaji gis nga dëkk bii dëkk bii. Euh, laisser aller bi daa bëri de. jaay doole bi nañ ko bàyyi. alaaji amul lu dul jeex ñun ñuy toog fii di wax dañoo toogoon ci mu roq doonum tànk di déglu ay nit. Mhm. Moïse Ambroise Gomis barki démb la fi jóge dem si yàlla Bachir Kounta gis nga ko ana ñoom Mignel Baraw ana ñoom Elisabeth Ndiaye Kounta bàyyi xel dama lay laaj ana laayeen bi xaw ma nan Jóob Mamadou Malaye Mamadou Malaye Jóob ñii ñëpp ci micro lañ nekkoon ah bàyyi xel la mënoon ñu foofu dàqoon ñoo làkk tubaab dàqoon ñoo jàng seeni niveau jegewuñ sax ñin ñoom seeni seeni niveau même bu dee dañ naan njàngu tey ñoo gën a xaw ma lan bitim réew yooyu. Hmm. duñ sax suñ morom. ñooñu bu ñu koon cinquième secondaire laa lay wax nii ña nga ca français yoo xam ni tey ay étudiants ngay gis laa lay wax nii mënuñ laa waxal sax ñetti français yu leer. Hmm. ana ñu tey bu loolu weesoo ana waa kër Ablaye Wade gisoo fi ay ministres yoo xam ne instant bii ñu ngi dagar dagar yi gars yi di buuxanteeg nit ñi ci mbedd mi. te ay huit huit lañ la doon rombé suba abus de pouvoir. fekk ay journalistes ci ay rédaction di leen dóor. ak di rang ci buntu. homme d'affaires ba bu ñu juumee jalgati jël suuf nit ñi duñu leen ñemee wax dëgg. ah ana ñu tey ana ñu tey. réew mi ñu nekk ba ba tax yow nit ki bu a nekkee millionnaire wala milliardaire bëgg tawaxal ku néew doole doo taxaw doo taxaw jàkkaarloog moom. ànd ak ki néew doole. déedéet xam ne jaay doole gi du yoon waaye yaa ngi xool nu mu la mën a joxe asla. non non non déedéet déedéet déedéet du ñu ànd ak kooku. du ñu ànd ak kooku alaaji. Ah. da nga ciy daw ñaar. Ah. yaa ngi ciy daw benn. waa ji mere la teraanga ji nga doon am ci moom dootoo ko am ah. boobu benn ñaar yaa ngi dafa am carotte alaaji bâton bâton yaa ngay ragal représailles ay duma après ñoo fekk la ci convocation police wala gendarmerie wala ay door mel ni convocation euh, gàcce la ah dañu xanti dëgg mel ni woote gàcce la yow ndaw si war naa taxaw fii di def vidéo naan Pierre Atepa Goudiaby dane ma boo ma joxulee sa bopp danaa la sànq allahu akbar mais abu abi nduur bu nekkuloon ci dëgg nga foog waroon naa fanaan këram dem ah mu tuddaat ab de la gendarmerie. ne dafa ñëw di jàppale jabaram. mais dafa ne ci bu nekkul woon ci dëgg war naa fanaan këram. dafa ne ci dëgg këram lay fanaan de. xam na du nettali kat. Ah. du du du waxkatu lu dul dëgg. abi dafa dox ci daray caaxaan. nit ñëpp gis nañ ko. abi doxul ci daray caaxaan. <laughs> magam am na nu mel seen waa kër am nuñ mel mais ku ko xam ku ne di nga xam ne kii daankatu doole pire la. wallaay maa la ko wax. parce que bu ko neexoon tey waaye yow ñun ñii ñëpp alaaji am nañ ay mbokk yoo xamante ne ni ñu ngi ci dara. wallaahi mais doo dem toog foofu ne jébbal naa la sama bopp léeg lii ñoo bokk ndey ak baay. wallaahi du ma teree man wuti liggéey. wallaahi. te ndaw si jigéen la. mais yoonu góor la rëdd. boobu ba tey mu ne ca. jàmbaar. ubbi ab bivet na buur ñëw lu mel ni Descos ne ko fii buur da kay tare ñu jëlee la fa. waaye ay ay jàmbur. mais ay jàmbur ñu ñuy bëgg a daan doole comme yow. ay préfet. kii ñëw ne la sama jabar dafa bëgg fi ah ñëw ne la boo ma joxulee sa bopp yow ndaw si dinaa la yàq dinaa jël téeméeri abokaaw wa ila dina yow jël benn. waaye moom jël na avo jël na avocat wu askan wi. waaw. abi avocat bi mu jël moo gën a baax. mooy avocat askan wi. moo gën a baax waaw ak presse bi normal. nga am le wax de ak presse bi wax dëgg. tout un peuple. peuple bi yëpp askanu lumbu. waaw dan dan dan dan la ñu la jàppale presse bi wax dëgg. Ah. waaw. waaw yow ay yi nag nañ waaw yow. lii xam nga ne démb bi ñu démb ba mu daanelee rek la maître Malick Sall laa lay wax nii waroon a jóg euh, s'autosaisir. waaw ah dëgg loolu dëgg. wallaahi dossier Adama Gaye lan lañ fi wax. c'est mois même la wax. qui ai pris responsabilité propres responsabilités. <laughs> voilà. waaw ah, waaw. l'expression c'est moi même. loolu lan moo ko gën a garaaw man sama bopp man maa jël samay propres responsabilité yow lii do do tey ngay mujjee wax ci mbooloo mais Aby Ndour démb si guddi même bu fanaanoon këram tam ay takk der ñoom ñoo fa waroon fanaan ak moom uh-huh. ne ko yow bu ñu xëyee ñu xool yow lii ngay wax nii uh-huh. lii lan la non seulement tu cites une autorité de la gendarmerie nationale deux ki nga tudd fii ne moom moo la def affaire santage sexuelle yi n'est pas n'importe qui dans ce pays il est connu ici au Sénégal en Afrique et même dans ñu la bàyyi nga fiy fanaan balaa ñuy xëy fekk la nga dee. duñu la bàyyi nga fiy fanaan balaa nga ñëw rëcc. parce que li nga wax nii barki démb lañ wax ne Cheikh Yérim Seck dafa waxal gendarmerie nangam dañ koo jàpp. abi warul a fanaan moom doomu démb dañ koo waroon a garder ba fajar ñu yóbbu ko gendarmerie ne ko kaay mu leeral. téye sécurité am. assuré sécurité am réew mii nag mooy ndumbelaan nag néew fi doole tooñ la. jigéen nañu dumelaan lool nag ah déedéet fa lañ moom la ñu dund de waaw loolu ba ñu fa nekkee yàgg na ah, ah. la situation bi yàgg nañ ci de dumelaan la de situation dumelaan gi yàgg nañ ci dumelaan la moo tax fu waaye ne rek dal yëglu waaw da ngay balaa ñu laa sànq te nit ñi duñ xam ne diw mi sànq nañ ko ah. balaa ñu laa rey te nit xam ne diw mi rey nañ ko situation dumelaan gi yàgg nañ ci waaw ne patta pataaral nag du fi am comme que Omar bun Xataab moo doon wax gën gi mbindeef ne ko bu dee ci yow la jóge nañ ko waxtaanee bu dee ci yàlla la exécutons fii fii kenn du fi yàlla lu fi ñëw nit ñi dinañ ko waxtaane bu boo ngeen yor seeni police ak seen i gendarmerie da ngeen bàyyi karam xurum xaax mu dem ñibbi li taxoon ngeen téye ko yëpp ubbi ngeen lépp bàyyi ngeen lépp. Hmm. léegi waxatuma assouplissement waaye léegi moom freedom. Hmm. bàyyi leen ko mu ñibbi. Hmm. yéen bàyyi ngeen fi ab député bu ñu tudd ci sàcc bii ay faux bii ngeen ne dafa feebar mu dem ñibbi karim xurum xaax feebar ngeen ba ko te déli xaajul bay nuroo kee bu doon nit la dañ naan crime la def crime économique kii lan la wax.